شيخنا تجاني هو شيخي وملاذي وعمدتي شيخ تجان موي إمامي شيخ سيد أحمد التجاني شريف ربي إني صدقت كل ولي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 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di waxe fii ci sunu chaîne OTV fa seeni waxtaan ci Mawlana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ci micro sunu xarit sunu soppe sunu doomu ndey di nit ku am taxawaay ci tarixa bi di Ndiaga Fall fa tabarakallahu fa seene rek euh, waxtaane Cheikhu Tidiane ci loo xamante ne nii ñi ko sopp fa tabarakallahu yaakaar ko jox ko seeni dund yëpp dinañ ko béggee xaaj euh, euh, jaga bu fekkee danga ma laaj kan mooy sunu sëriñ Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani euh, ci nu mu la koy mën a tënkalee Cheikhu Tidiane mooy li nga xamante ni ni dafa làqu woon ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mënul woon feeñ jamono jooju loolu mooy Cheikhu Tidiane bi mu demee nag ba jamono yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa weesu ci la Cheikhu Tidiane boobu génn loolu nan la mën a nekkee faaw ñu leeral ko Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa kenn umpalewul ni mooy mujj ci yonentu yàlla yi yonentu boo gis nag am na lu ñuy wax nubuwa nekk ci moom waaye am na lu ñuy wax eh, wilaya mu ngi ci moom donc wilaya gi moom mooy Cheikhu Tidiane yaa ngi koy déggee ci Cheikh Seydil Hadj Malick mu ngi junj ci xilaas mu ni آه، إن البتول بوحي كان زوجها خير الورى ثم آدى فارث البهم من بعد ما رد صديق كذا أمر والليث ما هذا إلا الدرع بالنعم سيد الحاج مالك دفع جانجل خلاص ما تبير جانجل خلاص جمو جانجل خلاص سيد الحاج مالك آه، دفع لي جانجل تصوف لول نك بو امي كومبريانس تي تيري بي اك غستو تصوف توتي تي غاي كومبران لم لا جنجو mais bo yeme ci siira kese kese kese do comprendre li mu bëgg wax ndax Seydil hajj malik dafa ni Fatimatu Zahra doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna Fatima xam nga sayyidina Ali moko yoron comme soxna neena yàlla moko digal niko ko jëlal kii nga takko ko comme soxna fa tabarakallahu bu yàlla dogalé lolou ci wahyu lako lako ko digalé daf ko ni def ko ci wahyu xam nga bu fekke ni yàlla wax na jëlal sa dom ji nga may ko ki kon du hasard Euh, yàlla du wax lu as du wax loo xamante ni hasard daf ci nekk ndax balaa mu ko may Aliou si El Hadj nee na Seydina Omar ñaan na ko ko mu ni ko xale la Seydina Aboubacar ñaan na ko ko mu ni ko xaaral ba ma laaj ko te ñaar ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk may na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doom sunu yaay ji tudd Sayyidatuna Aïcha kooku doomu Aboubacar Siddiq la sunu yaay ji tudd Sayyidatuna Hafsa kooku doomu Omar la donc am nañu plein droit pour ñaan ko moom tamit comme que may nañ ko seeni doom. waye nak ñom ñaar ñëpp mu rejeté may len may ko ki nga xamanteni moy Ali pourquoi yàlla daf ko xamal ni amna lu nekk ci yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam amna lo xamanteni loo na ci yow sa dom yi góor ñëpp dañuy faatu te sa dom yu jigen yi tamit mën nañu am jëkkër sa kanam mais dañuy faatu ci sa dund kenn nga fi bàyyi te moy Fatima donc koku mom mo meuna a donn li nga xamanteni li nekk ci yow dañ ko wara don dafa wara wéy day continuer tabarakallah bi yàlla dogale lol ñu ni loolu faaw mu faaw mu génn ñu moo tax mu jël kii di sayidatuna Fatima mu may ko sayidatuna Ali mu am ak moom ñaari doom ku tudd alxasan ak alxuseynu waaw ñoo ñaar ñoo ñoo ci gën a siiw am na ñoom ñeneen waaye ñaar ñoo ñoo ci gën a siiw xasan moomu mooy maamu Mawlana Cheikh Sidi Ahmad Tijani radiyallahu anhu kon ci Fatimatu boobu ngay toppee ba ci Seydina Cheikh radiyallahu anhu nga compter baay yëpp di nga fekk ni ñaar fukki baay ak ñeent la ñaar fukki baay ak ñett ak benn jigéen te mooy sayyidatuna Fatima foofu la Cheikhuna Tidiane génnee depuis moom Cheikhu Tidiane mu ngi tudd Ahmad papa mu ngi tudd Muhammad ba ci yonent bi sallallahu alayhi soo compter day nekk ñaar fukki baay ak ñeent tout le temps dama koy wax maa ngi ko doon wax keroog ma ni loolu mooy tombeek euh, guddi yi nekk diggante euh, euh, guddi safar ba mawlid صدقت كل ولي راعيا قد روى بعين احترام سيد الحاج مالك نانا سكر بابو موتاخ ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم جل دومم جي علي دونك علي بوب موجور آه، سيدتنا موجور سيدنا الحسن موجون موجور سيدنا الحسين حسن مومو مو إمام شيخ تيجان حسين موي مامو عبد القادر جيلاني كون داغا سي ديغي ني تاريخي فونو دوخ fu ñu dem dem dem dem dañuy dellu si ba doon benn branche yi benn la donc euh, ñu ni yàlla subhanahu wa taala dogal na bàyyi nekk ci diggante yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Tidiane ci mbiru yàlla ak nattam ñaar fukki baay ak ñeent la ñu wax ñu ne ñaar fukki baay yooyu ñooy tombeek juste guddi yi nekk ci diggante guddi Cheikhu Tijaan mooy katmiya bi nga xamante ni moom la ñuy màggal tey ni moom mooy katmiya ba mawlud ndax 18 safar la 18 12 jours moy dess wer bi dé weru safar bi dé benen wer tëru muy rabiul awal ñu am ci 12 jours rabiul awal bobu 12e jour moy gam donc da ngay gis ni 12 yi desoon fi ak 12 yi ñu commencé fi boko bolé muy 24 dafa melni lool lay melal da nga ci déggé ni kon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom moo donn yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci walu wo Cheikh Tidiane mu ngi juddo Aynu Maadi dëkk bu ñu wax Aynu Maadi te Aljazair Euh, yaayam mu ngi tudd soxna Aïcha papa mu ngi tudd Muhammad ibnul Muxtar euh, mu ngi judd ci atu jullit yi mille cent trente mille cent cinquante plutôt Cheikh Tidiane mille cent trente la judd ci atu jullit yi euh, bi mu juddoo ci ay waajuram ñoom ñoo ko yaral seen bopp bi ñu demee bi mu demee ba xàmmee moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi mu xàmmee ñu dugal ko mu jàng alquran di muy am juróom-ñaari at fekk mokkal na alquran mu Cheikh Tidiane mokkal na ko mën ko tajwid xam lépp lu ci nekk mu continuer nag di jàng alquran ba am fukki at ak juróom ay woy juróom jëlal ko soxna jox ko ni ko faaw ñu may la soxna ndax loolu dafa loolu rek dina la xamal e, Cheikh Tidiane radiallahu anhu ay way juróom ay nitu sunna la ñu woon ndax dafa bokk ci àq yi war diggante doom ak baay nga utal ko tur bu baax su matee jàng alxuraan nga jàngal ko alxuraan bu matee julli nga digal ko mu julli bu matee sëyi nga mayee ko mu sëyi bu fekkee jigéen la bu matee am jabar nga may ko jabar bu fekkee góor la loolu dafa bokk ci charte yi léegi nag Cheikh Tidiane ay waajuram jox ko soxna mu dem xam ni soxna si àndul ak euh, fa tabaarakallaahu li mu bëgg a def ndax toogul mu ni ko bëggumaa gàddu sa àq bàyyi ma ma ma yeewi la nga dem parce que man toogu tabaarakallah mu yeewi soxna si bi muy am fukki at ak juróom benn ñaari woy juróom yëpp gaañoondoo ci benn bés ci benn jàngoro bu ñuy wax taawun ci arab comme genre euh, comme comme genre peste lay doon tabaarakallah bi mu gaañu bi ñu gaañoo moom mu continuer di jàng bi mu demee ba am vingt vingt un ans bi mu koy am fekk mbooleem lu ñuy wax xam-xam rek sunu sëriñ bi Cheikhu Tidiane xam na ko nee na man jàng naa xam-xam yëpp jàng naa xam-xam yëpp ba mu des xam-xam bu tudd mantiq xam-xam la boo xamante ni ñu bëri wuute nañu ci ci ci ñàkk daganam ñu bëri dañuy wax xam-xam bi a jàng ñii ni dagan na donc euh, wabnu salaahi wa nawaawi xarama wa qaala qawmun yambagi an yulama ku tu ku tudd nawaawi ak ku tudd ibnu salaahi ñaar ñii nee nañu daganul donc ñeneen ñi nee nañu dagan donc Euh, euh, wute am na ci xam-xam boobu léegi daal man li ma mujjee gëm ci xam-xam bi moom mooy naar yi loolu la ñuy wax nee nañu boo fekkee ni mën nga koo jàng sax na doon xam-xam boo mujjee jàng mooy xam bi lay jàngal wax ndax nee nañ xam bi boo ko jàngee da ngay mën a wax mën ngaa wax nit ba corrompre ko ci sa wax te du ko yëg donc Cheikh Tidiane nee na jànguma xam-xam boobu mais tekkiwul lu mënuma ko nee na yàlla sama borom moo ma jàngal xam-xam boobu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi mu paree ci loolu comme que époque bi mu ñëw époque xam-xam la premièrement mais époque wër gaayu yàlla yi la ci jamono jooju la Cheikh Tidiane ñëw gaa yi dañ daan jàng ba pare di wër gaayu yàlla yi fu ñu dégg wali yi ñu dem fi ñu dégg nit ku baax ñu dem moo tax jaar na ci tarixa yu bëri am na martaba yu bëri yu mu soxla woon jaar na ci tariqa bi ñuy wax tariqa xalwati jaar na ci tariqa bi ñuy wax tariqa chazeli jaar na ci tariqa qadar yi Cheikh Tidiane jaar nañ ci tariqa yu bari bi mu ci jaaree moom sunu sëriñ Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani euh, mu gis ni li mu soxla amagu ko léegi nag euh, yàlla dogal bi mu ajee ba dellu si mu dem ci benn dëkk bu ñuy wax Chalala am na benn nitu yàlla boo xamante nii dafa gaañu woon ñu suul ko foofu nitu yàlla mu ngi tudd Abi Samroun gars yi da ngay dégg léeg-léeg ñu ne Abi Samroun lañ ko joxee tarixa bi mais nitu yàlla moo tuddoon Abi Samroun Abi Samroun moomu Euh, bi mu gaañoo dañ ko defal benn miir bu mag benn benn xabru daal Cheikh Tidiane ñëw toog ko di jaamu yàlla di jaamu boroomam ba maamam fekk ko foofu moom ñaanul woon nañ ko jox tariqa Cheikh Tidiane lépp lu mu yor dañ ko ko proposé moom la sa maam Seydil Hadji naan amara nabiyu amara nabiyu bi tanazulin bi ifadati l axlaaqi bil wardi bil wirdil mu ni yonent bi digal na Cheikh Tidiane kon pour nga noppalu nga xam dëgg-dëgg li ñu yor lan la da nga da ngay xam d'abord tariqa bi du tariqa Cheikh Tidiane mais moo ci njëkk doon taalibe moom moo ci njëkk a doon taalibe ndax moom werd na Cheikh Tidiane werd na lépp lu tariqa bi wax Cheikh Tidiane daf ko daan def kon moom membre la ci tariqa bi kan mooy sëriñu tariqa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ni yonent bi moomul diine ji yonent bi membre la ci diine bi yàlla moo moom diine ji yonent bi moomul diine ji mooy lan gisoo ni yonent bi dafa daan julli dafa daan woor dafa daan joxe azaka donc il faut que nit ñi xam loolu tariqa bi faaw ñu am nag kuñ ko askanale tariqatu tijaniya tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tijani mais na la wóor ni bépp jaayante boo ci def jaayante woo ak Cheikh Tijani yonent bi nga jaayanteel te ku jaayanteeg yonent bi yàlla la jaayanteel donc loolu faaw taalibe yi xam ko bi ko joxee tariqa bi nag boobu Cheikh Tijani radiallahu anhu mu ngi am ñeen fukki at ak juróom-ñaar ñii ni ñeent fukki at ak juróom euh, benn mu ko am mais nag li mu ko jox rek mooy sala astaghfirullah ak salaatu ala salaatul fatih moom la ko jox jox ko laa ilaa mu demee après loolu ñetti at bu fekkee 47 ans la am wala ñeenti at bu fekke 40 ans la am 46 euh, ans la am mu ñëwaat ci moom moom Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu yonent bi ñëwaat ci moom dollil ko laa ilaha illallah mu continuer di joxe werd bi nit ñi wuyoo ko fu ne moom radiallahu anhu bi mu amee 64 ans moom Cheikh Tidiane mu daal di jógee Aynu Maadi dem Faas bi mu yegg see Faas ñëpp xam nañ xam-xamam ñëpp xam nañ dayoom commencé nañ koo dégg commencé nañ koo xam ñëpp wuy si ko mu ngi fekk foofu buur bu ñuy wax Mawlaay Souleymane fa tabarakallahu kooku dalal ko jox ko kër kër gaa ngi foofu ba tey daaral miraaya du ñàkk dem nga fa fa tabarakallahu moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi mu di yar di doxal diine ji nekkoon nit koo xamante ni ku tënku ci sunna la euh, borom téere mun yetul murid mu ngi wax min dalika tibaahu li sunna wa hiya lada rijaali xayru minna lu jaaxal nitu yàlla yi ba jaaxal leen ci Cheikh mooy tënku gi mu tënku ci sunna bokk na ci li lay xamal ni sunu sëriñ bi radiyallahu anhu dafa tënku ci sunna bi mu ñëwee Fass fekk na ñuy dem di jullee ak di célébrer seeni évétement ñoom jullit yi ci benn jàkka bu ñuy wax masjid alqarawiyin benn bés taalibe ni ko ah sëriñ bi fii de da ngaa fekk ni chaque laylatul xadir dañuy dem ci lieu tel ñu defee fa célébrer ko foofu mu laaj leen parce que borom xel noonu borom xel noonu lay def balaa ngaa participer participer ci mbir faaw nga laajte ba xam exact mbir moom nan la mu laaj leen nan lay demee dèjà xam na mbiru diine la ndax leentul xadri mais mën nañ koo euh, célébrer ci anam woo xamante nii daanaka du dëppoog diine euh, mu laaj leen nu muy demee ñu ni ko ah ñun de dañuy dem foofu jigéen ñee góor ñee ñëpp fay daje mun leen jigéen ak góor ko waa nu ko léegi nan la jigéen yi nu ñuy toll à peu près ñu leen dinañu mat ay trois cent et jigéen mu ni trois cent et quelques jigéen ñëpp daje ci benn lieu kenn indisposé wul kenn amul doom ñu ne ko non non loolu mënu ci ñak sëriñ bi souvent dañu indaale sen dom sax di changer fofu seni i couche ak seen i affaire Cheikh Tidiane ni len hada masjidun muhanun wajaba alina hijranuhu jàkk ji jàkk ju ñu dal la waxul jàkk ju doyo di la jàkk mais nit ñe ko doyo dal war nañu ñun ñëpp ñu mëcc wattandiku jàkk ji mu tok fofu ba dem ba ñu changer loolu système bi ñu changer ko ñu organiser wat ko ci la commencer dem loolu mo lay xamal ni kon talibé cheikh war na fonk sunna Cheikh Tidiane daawul woon nangoo nangu jaxasoo jaxasoo daa ko woon nangu te bokk na ci charte tariqa Cheikh Tidiane moom mooy mbooleem lu la a digal nga topp ko te bokk na lii la a digal mooy góor ak jigéen duñ jaxasoo góor du jox jigéen loxo jigéen du jox góor loxo loolu bokk na ci charte tariqa yi kon na Tidiane radiallahu taala anhu ku fonkoon sunna la mu nekk foofu ci Fès di ubbee di jàngale di di di yaraate tabaarakallaahu ñu wuysee ko fu ne mu amoon ñoo xamante ni ni nag kuñ la ci wax dayoom rek da nga naan lii xanaa mënul nekk ma sital la ci kenn amoon na kenn ku ñu wax sayidul arabi ad damrawi at taasi am na ñaari sayidul arabi am na ku nekk raba tudd sayidul arabi ibnu saalih am na ku tudd sayidul arabi ad damrawi kooku noonu daan na gis taaliba cheikh la su ma la waxee kooku rek da nga naan koon sëriñ bi nan lay war a mel kooku daan na gis yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam vingt quatre fois par jour 24 fois chaque heure mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom euh, Seydul Arabi ad-Damrawi boobu dem na ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko euh, dama la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bu gisee waan ak Cheikhu Tidiane dafa daan Cheikh Tidiane bul ma fàttee nuyul sa xarit bi sa taalibe bi ad yi loolu dalay leer ni kon euh, fa tabarakallahu sëriñ bi bu fekkee ni ay taalibeem ñoo mel nii ngal la woo sëriñ bi nan la woo nan la sëriñ bi war a mel tabarakallah ben bes nak benen point bu mu ci dugal cheikh tidiane waji euh, sayyid al arabi ad damrawi mës gis yonentibi yonentibi niko hamga xam nga lam motax nga am cieur bi ci man muniko dedet ko ko li tax nga am cieur bi ci man moy da nga bëgg cheikh tidiane imagine li la wax muy gis yonentibi 24 heures sur 24 chaque heure mu gis yonentibi yonentibi niko li nga bëgg cheikh tidiane motax nga am ci man cieur bi kon dalay da nga ci xamé ni kon bëgg Cheikh Tidiane du ay fo du ay fo du luñuy fowé garat bu reuy la mom motax tax Seydil Hadji Malick naan walam walan yamuta man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan biatina ku bëgg Cheikh Tidiane du délu dul dafa don wali Cheikh Tidiane mu continuer fofu di yare di défaraté koku rek la lay jox ci comme talibé mi mais mën na la ci limal ñetti témèr wala ñenti témèr ñu melni mom mom Cheikh Tidiane bi mu amé 80 ans ci la génn àdduna faas boobu la génn àddina sëriñ babacar si radiallahu taala anhu moom lay junj naan wa aasha yashabu min jaddi nabi sharafan àndaa léegi géeji baawaan penku ak sow ya sëñ baabakar dafa dégg dafay way di la jàngalaale ngay bég di jàng xam nga loolu dafa neex souvent mën nga jàng rek te doo bég mën nga bég rek te doo jàng ndax bu ñu lay wax loo déggul mën nga bég rek bu ñu lay wax loo xam te riime wuñ ko defaruñ ko waxee wuñ ko ci làng bi nga xam munoo bëgg mën nga jàng rek mais doo bëgg moo tax mu ni waasa cheikhuna tijaani waasa dundu na yasxabu yasxabu boo ko déchiffré boo ko déchiffré yasxabu boo ko déchiffré li mu lay jox mooy dundu Serigne Ba dundu dund Cheikh Sidi Ahmed Tidiane muy 80 ans euh, Cheikh Tidiane bi mu gaañoo nag ñu suul ko foofu ci euh, bërëbam bu tedd boobu nga xam ne fa la ñu njëkk dajee yow mii may waxal njagafal wa tabarakallahu euh, Cheikh Tidiane en résumé daal dundam lii moo nekkoon suñu dund sang bu tedd bi mu des nag euh, maqaamaat yi mu am loolu moom beneen affaire la kenn ku nekk euh, fa nga ca xamee rek ngay wax mais di nga ci wax a wax a wax wax ba noppi te xaajoo wax xaaju xaajaat bi kon nag yàlla na nu yàlla dollil cofeel ci Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani euh, bu fekkee ni dañuy wax ci maqaamaam yi ak martabaam yu tedd yi moom Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane benn waay mës na koo dogale ni ko danga may wax yaay kan wala soo ma waxul yaay kan fase naa sama jabar nga loolu ci charia bu ko Cheikh Tidiane waxul mooy kan rek jabar ji fase na ko Cheikh Tidiane bëggul dèjà waa ji fase jabar bu fekkoon yow la wala man mën nga ni ko ah lu sama yoon fasal sa jabar sa affaire la ko koy yëg mais Cheikh Tidiane melul noonu xam na ni fi mu ne nii bu ko ko waxul bu ko waxee du ko yàqal dara bu ko waxee mooy kan exact parce que waxu ko yaay kan ci niveau bi ñenn ñi di xalaatee mais yaay kan ci zahir sa dëgg-dëgg mooy lan parce que waa ji tellement Cheikh da ko impressionné Cheikh Tidiane ni ko man loolu rek nga bëgg mu ne ko wax boo ma ko waxul fase naa sama jabar Cheikh Tidiane ni ko man daal ci gàttal maa ngi mel ni suuf wali yu yàlla yi ñu ngi mel ni ay garab maa ngi mel ni suuf wali yàlla ñu ngi mel ni ay garab Cheikh dem yoonam donc loolu gëstu la laaj. junju la boroom xel yu mag yi boroom xel yu baax yi ñoom comprendre lan la cheikh bëgg a wax waaye cheikh keroog ma ni cheikh bi mu juddoo wax na mooy. xatmiya ak katmiya na ci cheikh mooy xaatimul awliyaa moo moo fi mu yegg ci wilaaya soo déchiffré année bi ma la jox ni moom la gaañu moom la juddu moom Cheikh Tidiane année bi mu juddu bu ma la ko joxee nga déchiffré ko mooy mille cent cinquante ci hijriya ci atu jullit yi soo ko soo bindee mawlidul xatmi nga déchiffré mawlidul mi daf lay jox année boobu donc amul beneen waliyu yàlla booy déchiffré année bi mu juddu nga déchiffré li mu wuyoo lu mu woote moom mu jox la loolu amul soo bindee mawlidul mi nga déchiffré ko dafa lay jox mille cent trente mille cent cinquante année bi Cheikh juddu gaañoom bi mu génnee àdduna moom Cheikh Tidiane soo bindee du final xutbul maktumi jalaa bi faas xutbil maktum bi feeñoon faas suul nañ ko soo bindee loolu ci arab nga déchiffré ko dafa lay jox mille deux cent trente mooy année bi mu bi mu gaañu donc bi mu juddoo mu ngi wax ni mooy kii bi mu gaañoo mu ngi wax ni mooy kii juddu baa ngi jàngale xatmiya Euh, nu mu tuddati euh, gaañu gaa ngi euh, bi mu génnee àdduna mu ngi jàngale xatmiya léegi nag xatmiya mooy lan nan la demee xatmiya moom mooy martaba bi nga xamante ne ni moom moo moom la martaba bi xatmiya mooy martaba bi nga xamante ne ni moom la Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu gàlloor martaba la boo xamante ne ni moom mooy wane ni cheikh mooy xaatimul awliyaa yi xaatimul awliyaa yi nag bu ñu ko waxee tekkiwul ni wali yu dootul ñëw euh, ginnaaw cheikh comme ni nga xamante ni yonent bi mu nekkee xaatimul anbiyaa yi yonent dootul ñëw ginnaawam déedéet bële li muy firi ak bii li muy firi bokkul xaatimul awliyaa li muy firi mooy euh, saydina cheikh radiallahu anhu fi mu toll ci wilaaya beneen waliyu yàlla dootu fa tollooti euh, moom mooy tëbb mboolem góor yi ci lu ne ci fu moo leen di tëb góor yàlla yi nag bu ñu ko waxee nekkul ni tiijaan yi rek waaye mbooleem kuy góor yàlla di waliyu Cheikh Tidiane moo lay tëbb ay leer euh, li koy seedeel moom mooy wax ji mu wax mu ni yowmal qiyaamati dañ nañ ma tegal benn turbinu or ma yéeg ci taxaw ba ñëpp gis ma ginnaaw loolu ñu dégg benn voix bu wax ñëpp diñ ko dégg képp ku taxaw foofu dina dégg wax ji ñu ni e yéen ñi taxaw fii ci yowmal qiyaamati yéen ñi taxaw fii ci taxawaay bi kii ngeen gis mu taxaw ci tërbin bi mooy ki nga xamante ne ni moo leen doon tëbbi leer moo nekkoon seen imaam ci seen këruk àdduna ci seen ñàkk yëg Cheikh Tidiane moo bind loolu léegi martaba xatmiya bi mu ngi ko am ci bésu arafa ci ci du ci bésu arafa waaye ci bërëbu arafa ci xeeru arafa euh, mom moko netali wala ñu ne Aliou Harazim moo ko wala doomu bu tuddu sayyid Seydul al Habib ndax borom munyatul murid mu ngi nan fa fil muharram gada gawthan rashid khalifatan an il muhaymin al majid maqami khalifatan an il muhaymin al majid أوطي ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه وعرفة Cheikh Tidiane martabaam bi nee na Seydou Ali Harazim mooy wax nee na dama toog ñu julli tàkkusaan ba pare Cheikh Tidiane ni ma kaay ma ñëw mu ni mu jàpp ci sama loxo mu ni ma gëmmal Aliou Haradi mooy wax de taalibeem la moo xamante ni moom moo def téereem bi ñuy wax Jawahir al Maani mu ni Cheikh Tidiane ni ko gëmmal mu gëmm Cheikh Tidiane nee ko lu ma def def ko Cheikh Tidiane jéggi benn pas Aliou Haradi yëg Cheikh jéggi na benn pas mu jéggi benn pas Cheikh Tidiane jéggiwaat mu jéggi Cheikh Tidiane jéggiwaat mu jéggi Cheikh ni ko xippil mu xippi gis boppam ñu ngi taxaw ci xeeru Arafa bi mu ko naan gëmmal ñu ngi ñu ngi ci buntu rawdu ba fas euh, loolu nag buñ ko waxee nit mën na ko war nañ koo mën a gëm sax ci jamono ji ndax tayyu lem dafa am tey bu ma la waxoon tey euh, basangu 10 mètres jéggi ko benn pas ko mais buñ la ko lemalee di nga ko jéggi ci exemple tey tubaab bi euh, lemal nañu temps bi ba nga xam ni ci benn minute wala ci benn seconde wala ci benn tiercé mën nga cee wax ak ki nga xamante ni moo nekk fépp ci àddina bi donc bu ñu mënee gëm loolu ci nit war nañoo mën mën a gëm lu raw loolu ci sunu borom subhanahu wa taala yàlla defal ko loolu euh, ñu jox ko ñu ràng ko euh, mbalaanu ki nga garaat bi nga xamante ni mooy garaatu xatmiya moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moom la euh, Cheikh Tidiane si al maktuum di wax hada rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan di wax di wax di wax dafa mel ni séance boobu la Cheikh Tidiane si almaktum di nettali waaye Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ba tey bokk na ci martabaam yi nga xamante ni moo lay xamal ni mooy tëbbi góor yàlla yépp nee na wa kullu ma faada moom moo ko wax nee na lépp lu wa kullu ma faada wa baraza min xadrati llahi tatalaqaahu daatu nnabi wa kullu ma faada wa baraza min xadrati nnabi tatalaqaahu dawaatu al anbiyai wa kullu ma faada wa baraza min xadrati al anbiyai tatalaqaahu daati wa minni yatafarraqu ila jamii il xalaayiqi min nasati l aalam ila yowmi nafixi fi suuri nee na lépp lu jóge ci xadara yàlla ba leeru yonent bi ak zaatu yonent bi moo koy moo koy gàttanu wàññi bi ko ci yonent yi yonent yi jàpp ko yonent yi ñu yónni nag la ci namm li ñi ñu yónni 313 ñi nga xam te ni ay messager lañ ñooñ lañ ci namm mu jël ñu jël loolu wàññi doos bi wàccee ko ci Cheikh Tidiane buñ ko wàccee ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane wàññi doos bi ba xam kenn ku nekk lan nga war a am lan moo lay war a mën a doy mu partagé ko waliyu yàlla yépp noonu lay lu jóge ci yonantu yi daal amul kenn ku ko ku am garaatu dékku ko ku dul Mawlaana Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu donc nag euh, loolu mooy martaba xatmiya bi waaye nag bu fekkee martaba katmiya bi mooy martaba bi nga xamante ne nii moom sax xamu ko <laughs> moom xamu ko martadi keneen mosu koo am njëkk moom donc euh, kooku mooy sunu sëriñ mooy sunu wasila mooy sunu lépp ki nga xamante ne nii benn cerse mënuñu toog benn minute te xalaatuñu ko c'est impossible ci ñun mooy Cheikh Sidi Ahmed Tijani euh, moom moo tax nga gis nitu yàlla yi nga xamante ne nii topp nañ ko dañoo xam ni mënuñoo amee feneen ci keneen lu gën lii kon tax benn solution lañu am mooy ñëw bokk ci lii Cheikh Alhaji Omar رضي الله تعالى عنه بمجامع يالله بنيونكو منغا كره سيون بوب سيد الحاج مالك ينكو منغا كره سيون بوب موني من يون بيغا خمانتاني ني شيخ عمر تالي لا سي شمد الغالي طالب لا سي بايل مودا دون سي طالب تي pourtant ñom ñep tollon nañu fi nga xamanteni amna ay wali yu tollu won fofu dañoo laaj tariixa jox len waaye nag tariqa Cheikh Seyd Ahmad Tidiane bi mooy tariqa bi am garante sama maam Thierno Mouhamed Bokar xam naa foofu laa koy tëjee mu ngi wax ci benn qasida mu ni kullu safa ini gaasat wa hiya fi dahri tajri safinatu lbahri laysat ala albararia tajri siwa safinatu birri wa hiya fi lbarri tajri wa bahri mu ni mbooleem mbooleem gaal yi suux nañu waaye gaal Cheikh Seyd Ahmad Tidiane bi fii ba àdduna di tukki day dox mu ni gaalu dex mënul dox ci jéeri ba mu des gaalu Cheikh Tidiane nee na gaalu Cheikh Tidiane bi mën na dox ci dex mën na dox ci jéeri kon nag yàlla na nu yàlla dugal ci gaalu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi maa ngi nuyu di ziar bu baax a baax mbooleem kuy seetaan vidéo bi di ziar euh, sama xarit sama soppe sama rak euh, Ndiaga Fall borom euh, OTV fa tabarakallahu O Vision lay nuyu yàlla na Ahmad Tidiane في سونو كر سونو كر مام انسي غوفرنر محمد المصطفى كان ديكو نيانال ياكو وير دولل سوخنا باي دولل نجابوت ييب وير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شيخنا تجاني هو شيخي وملاذي وعندتي الشيخ تجان مي امامي شخصية أحمد التجاني شريف أقول أحمد شعب التجاني وهي تسليم ربي إني صدقت كل ولي